jërëjëf jërë ngeen jëfati mbokk yi ci seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di kontaane it bu baax baax ci àndin beeg wéetiliku gi ñu ngi amati mbégte beneen yoon beneen jotaay ñu ci ànd ak yéen baaxoo nañu di àndu ngeen ci ay jotaay yu di dalal képp koo xam ne ràññee ngeen taxawaayam ak ci domaine bu mënti nekk tey nag ñu am jotaay ak benn jeune actrice boo xam ne vraiment dootuñu ko présenter à travers Marodi TV ñu bari ci askan wi xàmmee ko la Senbuzz fas yéene am ba ñu mën a am ak moom jotaay euh, xanaa rek ngir a commencé Maada dama lay gërëm bu baax a baax di am reconnaissance aussi bu baax a baax ci disponibilité bi nga xamee ni maa ngi ko rédaction seen bés. maa ngi lay remercier ak congaan bu baax di am contentement ci interview bi. jërëjëf di leen remercier yéen tamit di rafetlu seen taxawaay parce que mën naa ne fu ñu bëri mënut a yegg yéen da leen fay yeggale. à chaque fois ma di leen seetaan ngeen nekk euh, benn euh, chaîne de télévision bu mucc ayib tuwaat fekk la maa ngi lay remercier yow tam déplacement bi. merci beaucoup. Mhm. très bien alors pour commencer certainement ñu bari personnage yu Maada Ba moom la ñu gën a xam da mhm. euh, mais dama bëgg ñu génne personnage boobu un petit peu boo doon def benn présentation pour fans yi ak soppe yi lay bàyyi xel gën la xam lan ngay wax. Maada mën naa ne personnage la non turu turu turu série la rek. ok maa ngi KPN nekk benn marque boo xam te dama ko créé woon bu lutter contre la dépigmentation. yaakaar naa ñu bari KPN lañ gën a xam. d'accord. Mhm. très bien Khady présentation bi gën a yaatu fan nga juddoo Touba Ndakaaru <laughs> famille bi kan moo la yar sa yaay sa papa un petit peu sa parcours d'enfance lan nga ñu ci mën a wax. Pikine laa juddoo. ok nekk benn banlieusarde nekk fier nag ci loolu dëkk biir Pikine juddoo fa yaroo fa màggee fa. falaa juddoo sama enfance falaa ko defee falaa jàngee ba tey ji tey ma ñëw dëkk biir Malika mais Pikine laa juddoo. suñu kër famille mu ngi Pikine tali bees deuxième robinet. d'accord wetu kër ñoom Ama Balde. très bien. pour cent doomu Pikine. 100 pour cent banlieue d'accord mhm. am chance su juddu fekk say ñaari waajur ñu teete la yar la wala sa maam la yar ci kër gu mag nga yaroo wala. wax ci loolu kër famille nag laa yaroo. kër famille moom mun a paase kër ngéwël kër gi woon laa juddoo falaa yaroo falaa màggee fekk sama papa ak sama yaay nekk macha allah ba léegi nii. Mhm. doom bu mu jur ñang la sant. juddoo ci famille bu mag bu ñëpp xam bu ñëpp reconnaître alaaji duñ nag sama maam talib bees yaakaar naa ne ñëpp ko xam mu nekkoon kër famille nekkoon kër géwél boo xamante ne mën naa ne ci mbedd sax lañ doon añee ndax kër gu bëri tëggukatu sabar yeeg woykat yeeg ñëpp ci kër gi lañ daan daje. Mm. mu nekkoon kër gu am ambiance moo tax joie de vivre bi nekk ci man. d' accord mm-hmm. donc kon bu ñu nee géwél ñëpp dañuy xalaat culture donc kon da nga juddu ci ci ci culture ci këru géwél par exemple. këru géwél laa juddoo. Mm. mu nekk nag benn fierté ci man parce que yaakaar naa ne bu ñu nee ngéwél rek dañ naan gentleman ngéwél jéeg bu baax ngéwél ceeb bu neex ngéwél. Mm-hmm. mu nekk benn ethnie boo xam te ne dama koy tiitaroo fu ma dem dama naan dama fier nekk li ma doon parfois nit ñi dañuy wax ay problème de caste ou pas man gëw ma loolu parce que géwal yaakaar naa ne bu ñu ko daan wax mooy géewal dañ lay géewal mhm. nga ñëw wax tagg nit ki wax mhm. ay baaxu maamam mhm. dañ naan géwal amul gën a muus la rek parce que tey ma la fekkee nga toog nga sañse ma sañse ñu daje xew ma nax la ba lekk sa xaalis mhm. mun naa yor sama million nax la ba jël sa dërëm absolument <laughs> loolu lañ naan loolu lañ naan loolu lañ naan géwal d'accord mhm. très bien mais souvent ñu bari géwal yi macha allah bëgg gi ñu bëgg culture dafay tax ñu ci bari si ñoom seen seen aliwo di sori comme ni ñu koy waxee mhm. ndax jot nga am benn parcours d'étude bi sa jàng lan moo ko yàq ak yooyu jàng naa en fait jàng naa ba bac musuma musuma redoubler macha allah ah am naa sama ba fe maa ngi ko amee euh, Pikine mhm. école bu ñu naan Sem Tidiane mhm. fa laa defee sama parcours scolaire jàng ma ñëw yëmbal Angela Davis école bu ñu naan Angela Davis fa laa amee bac ok en 2011 ba ma amee bag ma daal di demandé euh, fac fac euh, département anglais mhm. fac lettres ñu orienté ma droit parce que mu bëggoon anglais damaa ñëw ci école bi rek ne man maay présidente club anglais bi ñu may seetaan damaa yàgg am fit boobu damay dem école ñëw ne maay ma président présidente Fosco wala présidente club anglais wala dara. imposer sa nga bopp en mhm, mhm. parce que nit dañ naan chaque jour da ngay gëm sa bopp gëm ci li nga nekk. tout à fait. ma dem Angela fa la amee bac en 2011 ma ma amee bag ma génn dem université def fa 3 ans fac droit. ok après laa fa génn en 2013 2011 2014 ma dem ISEC. falaa defee formation en journalisme et communication. très bien mm-hmm. communication. Mm-hmm. accord mais dañ la gis euh, li ci gën a bari ak benn maison de production mën nga ñu wax un petit peu sa collaboration ak ñoom lan la. ñuy Evenprod ak Marodi yaakaar naa ne su may wax ci ñoom. Mm-hmm. fi laay fanaan parce que dañ ma jàppale. ba ma ba ma commencé dugg ci euh, affaire série ba léegi. ñoom laa xam mën naa ne ñoo ma yar. depuis 2017 ma nekk ak ñoom ba léegi nii. 2017 ba léegi ñaata at la. depuis 2017 ba léegi yaa ngi fa. maa ngi fa. en tant que. en tant que. Euh, jeune actrice buy liggéey ak ñoom d' accord. actrice liggéey ak ñoom ah, ba pare maquilleuse wala. beneen non non jeune kii laa nekk actrice laa fa. ma nekk fa actrice nag ñu bëgg ma fonk ma. bërki dem ba ma demee maroo Marodi DG bi dafay jékki-jékki su ma duggee bureau mu ne ma Maada da ngaa am da ngaa am rendez-vous ma ne ko déedéet mu ne waa kaay toog Mass Ndour ma koy saluer de passage mu nekk nit ku oyof. Mhm. li ma defal su ma toogee fii di ko expliquer fi laay fanaan parce que dem naa ba nekk en état mënatuma dem mënatuma dikk mënatuma jouer série mu di ma fay. justement loolu loolu dinaa si ñëw mais. le mhm. fait que aussi nga def jàng nga ba am sa diplôme ci li nga xam ne mooy journalisme et communication mais lu tax après nga détourné wu dem defi li nga xam ne mooy cinéma choix la rêve la woon. wala aussi waa euh, euh, dem jouer ji série dafa nekk loo xamante ne ci man la nekk lenn la luy nelaw ci man. Mhm. boo gisee chaque jour à chaque fois duma mën a dem liggéey entreprise wala dara man parce que dama naan maa mën a fay sama bopp dans la vie il faut être indépendante damay tooñ sax naan bonjour merci ba ngoon nga wàcc loolu euh, kii ma daal mhm. du loo xamante ne sama choix la si laa démarqué wu dem defi commercial pendant neuf ans j'étais à Nescafé def fa sama commercial am naa parcours boo xamante ne du lu ma mën a toog fi di ko expliquer. Mhm. xëy ma xëy rek daal di toog nii. te ko mhm. man ci ci loolu laa bëgg a ñëw sax dégg naa li ñu bari li jigéen ñi di def man nañu wax ni femme ambulante da nga mhm. daan ambulante ci mbedd yi dama daan nekk def commercial di jaay produit Nescafé sama tànk yi pënd weex tàll parfois nit ñi dañ lay gis nga nekk ci benn euh, place toog. du ma nekk je suis mais maa ngi sant yàlla alhamdulilah ndax nit moom àdduna loo gis bu amul jaar-jaar rek dafa neexul. tout à fait. dafa neex part parfois ngay toog di expliquer say jaar-jaar ma jaar fu metti foo xamante ne nii peut-être ñi may seetaan dinañ xam li may wax. pendant neuf ans nga doon def ambulant. ambulant di jaay ëmb naa ba diis di di def cigarette. doo xamante ne nii nit du du du lu nit war a def en tant que femme grosse enceinte en état de grossesse. ku dugg ci boutique bi sax boo ma gisee ma nekk en état taxaw di jaay da ngay jënd même boo tuxul da ngay jënd dem maye ko parce que da ngay am parce que sénégalais yërmande boobu mi ngi ci ñoom. may def commercial xëy dem di jaabante. Mhm. dugg ci région yi di jaay di dem di ñëw. d'accord mais euh, lan moo la poussé woon ci situation yi noonu souvent dañu naan xëy na danga bañ gàcce danga nekk ci famille boo xam ne xëy na jàpp nga ni responsabilité yu bari war nga ko teel a jël wala. Mhm. lan moo la poussé woon aussi ba ngay gën a nekk xale nga jëloon engagement boobu. parce que dama xool sama yaay mu dund ci benn famille boo xamante ne mu metti woon di nga tollu situation yoo xamante ne. pour nga satisfaire sa bopp en 100 pour cent day metti ba may def commercial man maa fay ba ma defee ba may def ba may jàng bac maa fayal sama bopp sama école su ma demee dem defi sama commercial ma wàccee ñu réviser samay leçons su weer dee ma fayal sama bopp parce que papa dama naan ko booba maa ngi doon fay 16500 Angela sama papa dama ko doon wax naan ko loolu ngay fayee jar na saaku ceeb parce que dañu nekkoon ci famille boo xam te ne rëy na mhm. booba sama papa embauchement am demeewul noonu mhm. léegi pourquoi pas tey yow nga mën a jël say responsabilité en tant que jigéen jigéen waay lu góor man dama naan jigéen mën na ko damaa hmm. demoon ba mel ne man maay taaw sama pap ba mu duggee université commencé percevoir sama bourse 18000 la ko dépense wàcc maay jënd ceeb maay jënd dëwlin maay jënd lépp dépense kër gi maa ko yor est-ce que loolu peut-être c'est la ma nga di ko nga di ko dévoyé d'accord hmm. na ma dimbali na ma ba lu ma dugg macha allah dama ci am ndam d'accord Mm-hmm. alors euh, lan ngay rappelé wu ci ci ci moment yooyu nga xam ne wax nga ko daan nga tollu diggante ëmb ba tollu diggante sax muy métti ngay ambulant ci mbedd yi di jaay kafe wala loolu lan nga boo koy fàttaliku image boobu lan lay lan lay yokk vraiment ci sa vie lan lay def si yow. dafa may yokk jom yokk ma courage doole dama toog dima xalaatloo parfois que ni jigéen. Mm-hmm. nekkul ni damaa nekk jigéen rek dara waruma damaa nekk jigéen dama dafa war a yomb. nit da nga war a gëm sa bopp indépendante surtout jigéen. parce que jigéen mooy yaay doom su bonee dañ naan doomu diw la ñuy wax doomu kàppeen la ñuy wax mhm. su baaxee la papa ak di ñëw man yaakaar naa ne boo yoree sa sa sa sa vie yow da nga ko war a cerner day metti nag parfois nga traverser situation yoo xam te ne da nga naan du ma ci génn mhm. mais il faut que nga gëm sa bopp relever wu jéem a jéem a defaraat sa toogaay parce que y a des yoo xamante ne elles sont di dund loo xamante ne dafa métti par parfois góor bu la fasee day fase waale say jabar say say doom autant pour moi mhm. balaa say doom nga war a dund war a lekk war a war leen a toppatoo kan nga koy ñaan da ngay am soxla làmb sa poos ko te kenn du ko xam li ngay wax nii expérience boo dund la wala lu ma dund la <laughs> dama ko dund duma ma ci bëgg a xuus mais dama ko dund dafa nekk loo xam te ne ni dama ko dund yor samay doom mu metti trop di saluer de passage mën naa ne benn famille Pouy. Hmm. ñoom soxna Pouy Abi famille Balla Pouy bu nekk West Foire. Hmm. ba mu méttee trop ñoom rek laa gis. ay feer sax mun naa ne ñoo ma ko daan jëndal. imaginer ëmb di am problème loo jëndee feer boo naan. c'était pas facile c'est pas facile pas facile. ma jaar ci loolu jàll. parfois nga dugg ci loo xamante ne danga naan lii nii est-ce que dina baax mais dama naan yàlla ki mu gën a bëgg kooku lay teg nat dafa mel ni sa yoonu ndaw xawoon na bari ay gàllankoor ah? bari woon na ay complication mujj gi sama yaay dama naan ko man est ce que tooñu ma wàlliw est ce que amul lu ma def mu ne ma yàlla dalaa bëgg moo tax buy neex balaa muy neex day metti mais bu neexee nga daw buy neex doo ko bu bu mettee nga daw buy neex doo ko fekkee te loolu ki ci mën a surpasser dëgg mooy jàmbaar ak ku gëm boppam man tey ma gën a am problème tey laa gën a mën a puudaru tey laa gën a mën a sañse tey laa gën a mën a reetaan yenn saa yi ma romb nit mu leb ma 10 ma xëyee ndékkiwu ma mm-hmm. li ma metti mënoo koo xam damay dox ak sama sakk di dox ak sama sutura mhm. ndax liñ naan yaakaar bu tas moo ma gënal sakk bu sàggeeku yàlla bu la mayee sakk c'est-à-dire que kenn du la gis ba yërëm la mhm. loolu déjà c'est quelque chose d'accord mhm. muy euh, parcours boo xam ne bari na ay métit ay gàllankoor yoo xam ni vraiment dund nga ko ci euh, parcours boobu tey bu ma la doon laaj ban moment la gënoon a difficile ci yow ci sa parcours d'enfance lan nga may wax moment yi gënoon difficile bokk na ci moment yi nga xamante ne nekkoon naa en état de grossesse sama jëkkër abandonné ma. sa jëkkër abandonné la. sa jëkkër yoonu yàlla. comme on dit génne ma këram à une heure du matin j'étais mu génne ma abandonné ma bon j'étais obligée ma ne fii nag li fi sës mooy lan mënal sa bopp rek doo dem ci kenn sa doo dem ci parce que nit ñi dañ lay gis nga dund dara ñu ne mu buggul sëy wala soit. taxawaal moo ko gën a wala ah ñi ay artiste lañ bëgguñu sëy fekk bëgg nañ sëy mais dañoo amul chance mm-hmm. Mm-hmm. ñàkk bëgg sëy ak ñàkk chance c'est pas la même chose tout à fait nit ñi dañuy réeree mbir mm-hmm. parfois dañuy juger nit te duñu xam nan la dund dama seetaan benn interview Mame Ndiaye Savon mm. si tu me permets allez-y ma gis mu def ko révélé lu bari loo xamante ne nit ñi ñi ngi ko doon ŋàññ ci loo xamante ne ñoom xamuñu parce que sénégalais dafa gaaw ci juger nit da ngay sëy divorcé wala nga sëyaat divorcé sëy ñu ne bëggul sëy fekk da ngaa amul chance sëy bëgg nga mais amoo chance ni góor ñi di amee catu jabar yaa gis di góor ñoo xam ne ñu am 4 ba cinq 6 ñu ne mënul yor jigéen fekk cat la ci ñoom xam xaan nga mhm. mu abandonné donné ma booba suñu kër maa ngi néeg bi ma nekkoon mu ngi nekkoon en chantier néeg bi nga waroon a dëkk wala néeg bi nga dëkkoon avant ba ma dëkkoon avant may sëy dama génn sama sœur jël ko parce que kër gi mi ngi nekkoon en chantier néeg yi bariwuñu Marodi bii tey ne moo jox ma xaalis bari lu garaaw laa lay expliquer li tax ma jàpp leen ma dem jëli logement dëkk fa Mass Ndour ne ma chaque weer dama lay daggal salaire te tourné wu ma woon chaque weer sama salaire dugg. plus de trois cent et quelques mille. pas mm. donné ak tout le monde. ñoom it ñu nekk ñoo xam te ne dañoo participer ci sama carrière Marème Dial chef de production mm-hmm, bi. Mm-hmm. Adja Ndour <coughs> bu ma limee damay juum. d'accord nekk ñu jàpp ci sama sama sama sama vie ñoo tax dofuma. ñoo tax dofu parce que parfois liñ naan nit ñu nit ñu nit ñu baax dafa baax ci ci ci dundu doomu aadama. d' accord mhm. c' est vrai que souvent euh, raison des divorces ci bu ñu koy wax ci réew mi ñu bari dañuy xalaat ni xëy na belle famille bu doy waar belle famille boo xam ni bëgguñu woon sa sëy ak seen doom ak yu demee noonu looloo tax xëy na divorce bi di am mhm. ndax mën nga ñu rappeler un petit peu lan moo poussé woon yow ak sa jëkkër vraiment ngeen dund situation yu noonu belle famille yu nangul woon sëy bi la wala lan moo doon crise ay réalité wax dëgg la yoo xam ne doo mën a toog di ko expliquer di ko dévoiler parce que tey nit ki mënoo ànd ak moom ngeen bëggante nekk lu yàgg dund avant ngeen di sëy sëy benn laps de temps benn 6 mois wala 8 mois sëy boobu tas mu bëgg la bañ noonu ah. gratuitement munu nekk day dem ba mujj gi parfois yow di nga nekk ci benn point boo xamante ne yow fi nga toog nii sax am na ñu la ko yéenewul micro bi ma téye am na ñoom bu ñu sañoon du def interview am na ñoom bu ñu sañoon tey KPN mi ngi fële ci mbedd bi taxawaalu mi ngi ñaan. Hmm. comme xam nga. Hmm. nga nekk ci sëy boo xamante ne tey ñu bëri duñ la ko yéene. sénégalais mu jël xaalisam. défi pour lu koy avancé avancé loo non non KPN mi ngi point A war a dem point B noonoo non du fa yegg xaalis boobu duñ ko def seen bopp si yow lañ koy def pour yàkkal la ay wax kooku day dem ba mujj ki wax yu bari réputation. bu bari da nga bëgg wax def def la woon ci sa diggante ak sa sa jëkkër boobu ko mi ngi ci du ma ne nekku ci parce que nit koo xam day jékki-jékki tey xabtalu sa kaw. di nga tiim sa jabar mu ëmb nga génne ko këram sa kër na dem na dem na dem damaa doyal damaa doyal. c'était pas naturel en ci nit koo xam ne xam nga ne ki c'est une personne joviale. Mhm, mhm. nit ku bien la sama jëkkër du ma wax nit ku bon la de. nit ku baax. Mhm. kenn gënu ko. mën na njaboot rafet na xol baax na am na yërmande ci jigéen. d'accord moment boobu nan nga ko doon dundee ak famille bi c'est vrai que delluwoo woon ci kër ga bi nga xamee ni ëmb nga ba diis sa borom kër libéré la bàyyi la nga dem nan nga ko doon dundee ak sa sa waajur bu góor wala sa bu jigéen. lu mu metti metti metti daf lay téye. Hmm. liñ naan sama ku nekk sa yaay na ko def sa xarit parce que ku nekk mën na la bañ a bëgg ku nekk mën na la bañ ku nekk mën na la rejeter ba mu des sa yaay yaay dafa irremplaçable moo tax ñi ko ñàkk damay xam li ñuy dund parfois damay toog ma ne man sama yaay ma jékki-jékki woon mu gaañ may jooy te fekk mi ngi en vie. Hmm. ma ne buy demoon da leen damay sonn. parce que yu bari moom nga mën a waxtaanal du la weer moo la mën a xamal du la weer mhm. moom nga mën a ñàkk mu sombi si néeg jox la nga du weer mhm. moom nga mën a am problème ñëw ne ko yaay lii mu faj ko te du la weer mu téye ma uuf ma ba ñëpp demee moom laa gis mu dëfal ma parfois daf may envoyé ay e, e, e, exemplaires yu terre à terre yoo xam ne uh-huh. ma bëgg juste que mhm. mu soulager ma moo may doole mën nga lii tu peux le faire jugal defarul nit ñi bëgg nañ la nit ñi dañ lay seetaan jugal nga defaru nga toog nga dàqwaat sa wërsëg ci leneen. d'accord. mu doon loo xamante ne nii yaay rek moo ko mën daal absolument mhm. très bien Maada di jeune actrice boo xam ne ci maison de production bi di Marodi TV fa la ko sénégalais ràññee moom la Senbuzz di am ak jotaay alors bu weesoo parcours bi tey ñu gis la ngay liggéey ak li nga xam ne mooy Marodi TV sa première production ak ñoom lan la woon casting la woon mais aussi naan nga def vraiment ba réussir xamee ni mooy mooy personnage bi la joxoon ak ban production la moom nga njëkk a ak ñoom euh, le champion de Bonama boo duggee internet. da mhm. koy gis parce que par fois dañ lay gis nga dekk ci maison de production nekk xarit ak ñoom am fa benn affinité ñu naan promotion canapé wala soit. justement ñu bari loolu la ñuy xalaat ah. kii nan la def ba dugg ci casting bi et tout. amul gis nga yàlla li mu namm ci yow ak li mu bëgg a def ci yow da ko ciy def te par force lay doon. tout à nit ñi dañ koy accepté day nekk buñ ko accepté wul day nekk xam nga lu tax loolu la yàlla namm ci yow. man sama àdduna dama naan métti dara mënatuma métti parce que lépp traverse naa ko j'ai tout vu dëgg la awma cinquante ans mais daj naa cinquante problèmes yoo xamante ne dama ci jàll à tête haute le champion de Monama ma bokk ci parce que Pod dafa nekk un ami sama xarit la daf ma bëgg mhm. daf ma bëgg sama xarit la mhm. ma boo duggee eh, YouTube nga tapé champion de Bonama da koy gis. booba Marodi du dara. amul woon dara. ñoom ñu nekk ñu reconnaissant. Mhm. parce que seeni nit démb moom la ñuy doxal ba léegi. est-ce que xam nga ni actrice yu bari wala acteurs yu bari ñu ngi waat biir Marodi di fa liggéey amaat fa salaire comme employé pour vous dire ba ma jógee ci loolu Arémère ba ñëw ñu joxoon ma fa rôle mbenn. Arémère ba Arémère Thiaba. ok defuma casting. booba maa ngi ci situation yu tar li ma lay wax que ni mhm. euh, hasard amul. maa ngi yor sama doom mu nekk xale mu metti trop mar kii woo ma pot boobu maa ngi sama place. Mm-hmm. mu ne ma allo foo nekk Khady Pouye ma ne ko man maa ngi ni ko mu ne ma dawal léegi nga dem Marodi. ba ngay def arrêt mère Thiaba waaw daa am série bu bees bu ñu bu ñu fay def te nee naa leen bu leen def casting xam naa ne kii mu leen di indil mën mën na ko te dina ko def parce que nit boo yàggee moom da ngay dem ba xam li mu mën ak li mu mënul mu ne ah pot mu woowaat ma demagoo ma ne ko maa mu ne demal yow rek la ñuy xaar jour boobu moto laa jël. ok moto laa fëgg daw dem. Mhm. ba ma demee ñu xool sama profil xool posé ma ay question ma ñëw ca après lañ ma woo que ni que sama personnage validé nañ ko. validé nañ ko si Armé Thiam. d'accord waaw ma ñëw nag commencé tournage. Ah. assuré ko assuré rôle bi ba noonu. Mhm. après la déchéance ñëw déchéance. Mhm. Khalil Thiam ma casting. bi nekk Babel. Khalil Thiam moo daa cuun. moom it mu nekk nit ku baax ku mhm. oyof. Mhm. gis ma que ni lii mën nga ko def. casting ma ci lañ ma jëlee tamit ci ci jox ma rôle Maada. d'accord très bien. Mhm. alors déchéance justement bëgg naa nga wax ma euh, rôle bi nga xam ne interprété nga ko ah, ñu bari gis nañ la ci quand même. dafa mel ni rôle bu dund la wala bu la neex la wala lu tax facilitation boobu aussi nga am ko ci rôle bi nga doon incarné. li may wax <laughs> Euh, déchéance nekk euh, kii boo xamante ne. peut-être hmm. ñoom dund naa ak ñoom joué naa armère ba ci genre boobu. parce que foofu tamit doo laa doon joué j'étais l'ex-copine à monsieur Ndoye. après muy génn ak sama xarit genre yooyu quoi. léegi nag gisaat nañ bii que ni mën naa joué nangu nekk ak koo xamante ne du ma bëgg ma topp ci di daaw parce que loolu moo fi bëri léegi. ñu jox ma rôle boobu ma accepté ko ñoom ñu gis que ni sama profil adapté na ak loolu d'accord parce que nit ki loo mënul duñ la ko jox. Mhm. loo def def casting bu la posé question wala soit ñu jox la micro ne la waxal boo ko mënul doo ko def nekkul ay yaama neex. moo tax gëwuma que ni. Mhm. da ngay neex nit ki rek mu ñëw dugal la ci série parce que casting bu nga ko wootee ñii ñëw munoo xam nañ toll plus de 300 personnes 200 dañuy ñëw teew xam leen bokku leen ndaay mais boo ko mënul duñ la ko jox. parfois damay gis série yoo xam te ne damay bu ma ñëwee dañ naan ah adopté wul ak sa âge wala ku xees lañ soxla donte seen xarit laa. kon man gëw ma ni casting yaa ma neex la en fait. yaa ma neex amu ci. Mhm. à ton avis amu ci. je pense que ñiy naxaate nekk di dugal ay casting am na nga ñëw ñu bëgg laa def dara wala dara ñoom ñooy dund ay affaire da yaa ma neex. yow dundoo ko mënoo mënoo wax ci loolu parce que ok. am na rôle yoo xam ne sax du ko joué junior daf ma koy wax junior moo bindoon Arrêt Mère Thiaba début bi. Mhm. junior daf ma koy wax nee ma borom cap si ma ni ma koy salué waale de passage. parce que mhm. sama carrière. parfois dara day am ma ne ko yow dañuy soxla ko sol lu gàtt te yow doo ko def c'est-à-dire am nañ benn image ci man déjà. boo xam ne d'accord du ma ne bëgg naa si wala bëgg naa bës ba lépp laay accepté. ba lépp laay accepté parce mhm. image day dem. d'accord. Mhm. très bien Maada bu bu série euh, des séances bu série Arimer Thiaba mhm. moom la seen bës di am ak jotaay ba tey Maada personnage bi tey. souvent ñu bari dañuy ragal quand même di interpréter yenn rôle yi yaa ngi koy wax léegi des séances amul benn regret boo xam ne am nga ko par rapport ak personnage yi nga xam ne moom nga doon véhiculer. non non gisuma ci loo xamante ne lu lu lu lu négatif la. Hmm. déedéet parce que. même retour yi ci doon am. aussi par rapport ma ci doon am parfois ma ñu ne ah yoro dammel moom iri la ba nga sonn te takku la. <laughs> yooyu dama koy dégg. mu def ma ay reetaan. parce que image bi da ngay dem ba da ngay nekk ci biir kii bi. Euh, hmm. scénario bi ñu la jox. Hmm. da ngay dem ba nekk in dugg ci biir parce que ma naan mbubb la rek. boo paree da nga koy summi teg ko nële. d'accord nit ki nekkul que nit ki li muy joué ci série rek c'est parce que noonu la mel non non. d'accord personnage ak personne c'est pas la même parce que tey maada bi nga fekk mu toog. Mm-hmm, mm-hmm. bokkut ak maada bi nga xamante ne tey mi ngi xuloo di dàggasante def ay affaire comprendre nga. Mm-hmm. mais am na role yoo xamante ne moom vraiment. du ma ko joué doo ko joué du lépp ngay nangoo joué. du lépp laay nangoo. d' très bien alors ba tey bëgg naa nga wax ma aussi réalité bi nga xam ne moom la ñu gis si déchéance quand même ay xale yoo xam ne xëy na c' vrai dañ leen di nax au final xëy na ba utiliser la yu demee noonu réalité boobu dafa mel ni réalité actuelle la quand même bu société bi dundu dund jigéen ñu bari aussi victime leen de façon générale. victime nañ victime lañ autant pour mois mhm. mais gis nga réew mi na ma yàlla baal mais xale moo fi amatul tey xale yi li ñu nangu def accepté. lépp à cause nag ci téléphone parce que yu bari ci téléphone lañ koy gis. ak ñàkk a doy lu matérialiste bëgg di am te liggéeyoo bëgg di am te nanguwoo sonn. am na yoo xam te ne ñu xëyuñu gontuñu bëgg nañ teg greffage bu rafet bu ñu gisee maada takk na or ñu ne xaar ma dem jëndi or te liggéeyuñu moo leen di indil yu bari yoo xamante ne ni tey lépp lu ñu joué rek da ngay xam ne lii nii lu am la. tout à fait. comme xan nga. Mhm. ñu bañ a jël seen bët di ko teg foo xamante ne egguñu foofu. ku ci nekk li nga am nga doyloo ko jéem a liggéey tey boo ma ñëwoon fekk tey ñu bëri ku ñuy wax Khady Pouye Niang bu ñu la ko waxee xam nga loo wax li ma gën a neex mooy dafa nangoo liggéey imaginel jom jooju bu demee ba nekk ci yow. Mhm. ku nekk toog di la ko wax. Mhm. engagement ak ay yenn production. waaw yeneen engagement moom buñ ma ko maa ngi koy xaar de toute façon parce que xam naa ne talent bi mi ngi ci man. Mhm. ñu ma jox mën naa ko jouer boo ñëwoon léegi ne ma jox naa la rôle lu silmaxa dama koy def. ah bon c'est parce que da ngay dem ba da nekk loo xamante ne tey lu ñu la jox ba ma def commercial dama doon wax boo ma joxee xeer ma jaay ko ku ma taxaw bëgg nga jënd nga jënd. sama place noonu la ku fa dugg doo génn ak loxoy neen. loolu yàlla def na ko ci man. parce que non seulement dama ko jàng. Mhm. mais dama dafa doon loo xamante ne dama ko dund. d'accord waaw production maison de production yi maa ngi leen xaar di leen déglu. mais bu ñu bu ñu bu ñu. <laughs> wala Marodi rek ngay xaar. non du ma ne Marodi rek laay xaar. bu soxlaa moom dañuy ñàkk. mais keneen ku ñëw mu leer ma ni mën naa liggéey ak yow ma liggéey ak yow rek. tout à uh-huh. am na solo marée de séance moom la seen bés doon am ak jotaay alors dernier message bi ma bëgg nga jeexalee ko dama bëgg vraiment mu nekk loo xam ni message de motivation la nga xool caméra bi nga jëmale ko ci sa mbokku jigéen ñi moo xam ñiy jaay la moo xam ñi ambulant moo xam ak ci luñ mënti nekk rek boo amoon message de motivation booy jeexalee la lay doon. li ma leen di wax rek mooy àdduna yàggul muy sama mbokku jigéen ñi. muy góor ñi muy mag di ndaw li ma leen di wax rek mooy la confiance en soi déjà a ngay gëm sa bopp booy jaay gerte caaf sax gëm sa bopp di nga ci réussir ci loo nekk rek gëmal sa bopp. bul déglu nit ñi li ñuy wax bul déglu baatu ginnaaw bul déglu dara parce que booy dox di geesu daanu da lay yomb loolu bas ci moo ko wax sama góor boobu sama xarit. booy dox di gestu daanu dalay. yoo yoo mon ami nuyu naa la baax a baax. sama xarit la kooku une personne spéciale la. ci man dama ko bëgg. il est quelqu'un de bien Bass Thioung. fu ma ko woo mu ma. c'est vrai maa ko njëkk a indi Malika fii. ñëw na fi deux fois à ku baax la ku baax la vraiment. léegi laa coupé ak moom téléphone. macha allah Seydina Sibéru Faye nuyu naa la bu baax a baax. aussi Sibéru Faye ménageur bu bandi boobu <laughs> ma nuyu Sibéru Faye. <laughs> Sibéru gars yi soroon nañ ko nag de. Eh, Sibéru moom it mu nekk nit ku baax ku oyof. lu ma soxla te ma ne bas laa soxla maa ngi ko muy ma xuloog ñoom. dañ naan da ngaa bari histoire il est bien il est bien. comprendre nga. maa ngi leen di wax que nit ki gëm leen seen bopp. dama dama dem ba statut parfois damay kontaan. Mhm. parce que jigéen ñi ñëwoon ñi fi amoon amatul de époque boobu xale jigéen yi daan jooy di souffrir di méttitlu amatul de xale jigéen léegi dañuy focus de liggéey gëm seen bopp. barke Seydina Mohamed parfois dama naan bu ñëpp jaay kuy jënd. mais même jugement bi nga xamee ni souvent dinañ koy am si jigéen bu tas wala jigéen bu ndog-ndog euh, dal ci sa yoonu ndaw ba nga am doom ak yooyu loolu aussi bëgg naa nga nga nga ñaax ci mbokku jigéen ñi quand même. parfois je me dis que du xam nga lan la ku jigéen ki moom moo koy wan nit ñi xaw xam nga fi may waxee. Hmm. gis nga une femme divorcée je pense que moo war a gën a nekk nit ku brave nekk jàmbaar takk sa sër ba ki la bàyyi te li tax mu bàyyi la bu la gisee dina xam ne li tax mu bàyyi la du loolu est-ce que comprendre nga li ma yox bu baax olof laa la làkk de. comprendre parce que nit boo nee man damaa divorcé rek dama war a nekk benn borgel ku ñëw jàll parce que góor ñi. Mhm. seen bopp lañ fi nekkal de. bu ñu gisee ni divorcé nga dañuy ñëw de def passe-partout. ñëw di jaar di jàll di mhm. jàll mhm. bu ñu gisee ni yow mi nooy nga oyof nga sër mhm. wala nooy nga bopp dañ lay utiliser bàyyi la fi dem bu ñu gisee que ni fulla nga ak fayda nga am no dañuy jàll ba caaka njaay parce que ñoom pour ñoom boo divorcé rek da war a nekk benn kon lépp si ku jigéen ki lay nekk ku ci nit lay nekk ku jigéen ki la ok man je pense que boo divorcé sax ci nga war a gën a mën a am fulla takk sa ndigg liggéey servir bu dee am nga njaboot nga mën leen a teg ci condition yu leer seen papa bu defee nga def bu deful nga def. très bien jigéen ñu divorcé ñi léegi dañoo am fula de. liggéey focus ci seen bopp. booy xool internet bi réseaux sociaux yi. 90 pour cent des femmes sont des divorcées. mais dañoo am fula di liggéey gëm seen bopp teel a xëy guddee wàcc. c'est clair ma ne di lancer waale message. di leen wax que ni. Mhm. courage rek laa leen di wax loxo bu la bàyyi loxo ngi toog. merci Maada focus rek. di jeune actrice boo xam ni gën nañ ko xamee ak maison de production bi di Marodi TV moom la seen bés doon am ak jotaay. maa ngi lay gërëmati vraiment gërëmaane bu amul àpp ci jotaay bi ak disponibilité bi xam naa ni loola fi doon xale bu ñu sol yàpp mag nga nag Maada maa ngi doon am mbégte si jotaay bi. <laughs> dégg congaan maa la gën a kontaan bu baax. wax dëgg yàlla ci déplacement Ahmed mooy sama PDG waaw mooy sa PDG Ahmed mu nekk tamit nit ku sedd gis naa ni ba ba léegi mu ngi ree xam naa naan maa dañu sax na la <laughs> maa ngi leen di remercier di remercier waa seen Senbuzz yëpp di leen wax ne ni benn euh, site la boo xamante ne c'est suivi merci ñu ngi koy seetaan te yéen a ngi dugal émission yi am solo. jërëjëf parce que parfois dama naan man képp koo xamante ne journaliste nga rek. Ah. wala animateur dama lay remercier. parce que ñun fu ñu mënta yegg rek yéen yéen a ñu fa yóbbu. tout à fait yéen la ñuy woowee les personnes de l'ombre. merci beaucoup ah maa ngi leen di remercier bu baax di am mbégte ak contentement. def ak émission. di leen wax ni ba beneen. di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ngi may seetaan. incha allah à travers fan ah. di nuyu fan si xam naa ne sax <laughs> maa ngi nuyu fan si eh, sama yaay ku ñeme dañ laa dee mbay ma dégg bintaak njaag njaag am na njaag ma di am na njaag kooku mooy sama wéeruwaay mooy sama gàllaaj lu ma dugg dama ciy génn ba mu neex te par force lay doon ndax daf maa ñaanal boo amee ñaanu waajur noo doxal da ngay da ngay jéng mais doo daanu merci beaucoup maa ngi lay remercier bu baax a baax di remercier sam papa